asalaamaaleykum mbokki internet yi Sidy Diop mu jaaxle bu ko waxee ak bu ko waxul loolu lépp yow may seetaan xam nga ko ci jafe-jafe yoo xam ne nag mi ngi am ginnaaw bañ ne dafa jënd oto buy jar ñu baree bari nag jàpp nañ ni mm, loole est-ce que wér na 67 millions de francs maanaam juróom-ñaar fukki euh, juróom-benn fukki millions ak juróom-ñaar yoo xam ne oto bi ñëpp ñu bari jàpp na ni loolee lay jar waaye nag ba tey moom Sidi jóob yëpp wu ci woon ay kàddu loole nag bokkoon na ci bis bu ne nag daanaka yor di dugg ci biir dëkk bi gars yi di ko partagé ak yooyu ñi naan 3 millions ñi naan 4 millions waaye lu ci mën di am li nu fi tax a jóg mooy solo si mooy moom mii di Sidi Diop dañu ko arrêté li nu ko arrêté mooy da doon dawal yorul permis yorul li nga xam ne mooy assurance oto bi maanaam oto bi kenn daggalu ko assurance te loole daanaka yoonu Sénégal day tere ngay dawal sans assurance loole nag nekk loo xam ni wax dëgg yàlla ku koy def ci guddi yu ñu toll bàyyi nga bàyyi ko ndax jàpp naa ni Sénégal mi ngi ci yeneen jéego mi ngi ci yeneen loxo yoo xam ni wuute nag ma jàpp ni ñi nga xam ne noonu lañ daan doxalee lu bëree bëri ndax yërmande gi daana bëri bu baax a baax waaye fi nii ci ni ma gisee nag képp koo xam ne ab chauffeur nga nga bàyyi xel maanaam yor sa nga bàyyi xel yor sa assurance nga bàyyi xel tamit këyit yi nga xam ne war nga ko am yëpp te mu soxal sa oto bu fekkee da ngaa bëgg a liggéey wala nga guddaandaat ci mbedd di dëkk bi loolee dina nekk loo xam ne lu la mën a musal ci lu bari la moo tax loolu nekk na ñaax boo xam ne moom la képp koo xam ne ab chauffeur ndax assurance bi sax li tax mu mën laa dimbali mooy boo demee ba nga xam ni jafe-jafe am na lépp lu jëm ci maanaam assurance boo ko toppee te jaar ci yoon tanga ko doon fay mu légal wute ko fu jaar yoon da nga mën a am ay xéewal yoo xam ni dana la ci fekk si waat buñ sukkandikoo ci l'observateur yëglekaay yi moom mi nga xam ne ak Seneweb sax mi nga xam ne yaakaar naa ni moo ko rapporté maanaam centre bii di si di euh, Diop ginnaaw benn ko jàppee te téye woon ko ca ndungu sun nag ñu bari ah, ci ay kilifa yu baree bari ci biir dëkk bi nag dem nañ di dox ay tànk jàmm tànk jàmm nag bu ñu ko déggee mooy dem fexe nañu waxtaane di Diop mën a delluwaat ca biir këram loolee ñu bari bari nag def nañ ko waaye nag mujjul maanaam jaar yoon maanaam mujjul am ndax moom mi di Sidy Diop danañ ko présenté bu nu sukkandikoo ci l'observateur mooy kii di procureur de la république maanaam procureur de la république bu ñu fa demee nag fële ca tribunal bu boobaa nag moom Euh, grand instance bu Dakar tribunal grand instance bu Dakar mooy joxe li nga xam ne nag mooy verdict ba maanaam dëgg ga mën a soqi ko ci Sidi koy topp ndax xam nga ni foofee nag wax dëgg boo demee ba ñu war la àtte nag àtte la daan ñoo xam noonu lay daan peut la weer peut-être deux mois mois nangam ak nangam waaye ak lu la daan moom loolee lu nu mën a bàyyi xel lay doon Sidi Diop ñu koy ñaanal jàmm ak salaam ndax njuumte mënta ñàkk ci yow mii di ma seetaan njuumte mënta ñàkk ci man njuumte mënta ñàkk ci képp koo xam ni euh, ab euh, nit nga euh, yàlla na yàlla defal ko jàmm génn ko ci xat-xat yi nga xam ni ca la nekk ndax loolee mën naa dal ku ne ma gërëm leen sant leen ci information yi ngeen doon taataane fii jërë ngeen def maximum de partage ak ci bile vidéo aimé ko tamit loole dana nekk lu cuqur mucc bi information